waaw ñiy dawal Jakarta moom arrêté nañ Jakarta yi donc Jakarta war a tutal daw fenn ci Sénégal loolu aussi nañu ko xamee noonu metti na nag mais pour xeex jàngoro bi parce que gis ngeen ne jàngoro bi euh, cas communautaire yu bari tasaaroo yu ci bari day jaar ci ci ci wàll woowu donc moo tax ñu arrêté ko euh, li ci des nag mooy danañ xool comme ay xale ñoo ko naan def di def transport bi nan la ñuy def pour jàppale leen mais li ma wóor mooy déjà euh, première mesure bi président jël te ñu koy mettre en œuvre mooy maanaam jàppale leen ci aide alimentaire c'est sûr que am na ñu bari ci ñoom ñoo xam ne ci dëkk yi ñu dëkk aide alimentaire bi dina yegsi ci ñoom li ci des nag ñu jéem a xool bu ñu xaymaa seen euh, seen lim xool ni ñu doon taxawee xool aussi ak ministère bi nga xam ne moo yore formation professionnelle ak artisanat xool ak ministère de la jeunesse na la ñuy lëkkaloo ba ñu utal leen ay programme yoo xam ne programme yu mucc ayib lay nekk.